muy bëgg a dégg naan Diomaye day gagné élection Diomaye du am 2 pour cent Diomaye mënu am 5 pour cent ana peut maximum Sonko ba du am 10 pour cent Sonko 15 pour cent yi li taxoon mu am ko Khalifa Sall moo bokkutoon Karim Wade muy deux gros poids lourds le malheur des uns fait le bonheur des autres mais Sonko 1 pour cent lay parce que plus fort la woon ah bu ma feneen ne météo yaa mën a fenn. mani bi muy dem élection présidentielle pesé wul plus de 1 pour cent ndax bi def foo def sañ ko mu jee xamee la duggee assemblée nationale billahi wallahi taalahi c'était en 2017 juillet 2017 février 2019 un an et demi il passe de 0 virgule à 15 pour cent pourquoi parce que Karim Wade et Khalifa Sall à l'époque plus populaire que Sonko avec des moyens ont été écartés de l'élection présidentielle. Et ils ont voté, ces gens ont voté pour Sonko. Il a eu 19, 15 pour cent. waaw xar bi tey ma ñëw jël jël parole daa bëgg a bokk rek xam naa dafa jaaxle xam naa gis mbooloo bi gis da ko jaaxle waaw nga xam nga quand on va négocier les étrangers là vous nous emmerdez Vous ne connaissez pas notre pays. i y en a qui nous emmerdent. Qui pensent que Sonko est un monument. Le chef de l'opposition, vous venez que chef de l'opposition, c'est une Qu'est-ce que c'est qu'un chef de l'opposition C'est lui qui vient après le président. C'est qui C'est Idriss Seck. Il a le dans le gouvernement et de sortir, comme il l'a fait, comme Abdoulaye Wade le faisait avec Abdou Est-ce osait dire à l'époque que Wad n'était pas le chef de l'opposition Combien de fois Wad a rejoint Abdou dans des gouvernements de majorité présidentielle élargie Combien de fois il est sorti à la veille des élections pour se battre et faire face à Abdou À l'époque, il y avait Dansoro, il y avait Batili, il y avait Sabané. Qui osait dire à l'époque que Wad avait perdu son titre, sa place de chef de l'opposition Mais ce gars-là, moom daal dañ koy sosal di ko neexal di ko créer euh, chef de quoi chef de quoi chef de quelle opposition il ne fait pas classer deuxième il est largement devancé à la dernière présidentielle comment peut-il s'autoproclamer chef de l'opposition mais non il l'a pas fait mais il a tellement de de talibé parce que lui c'est un cheikh Ousmane mu sell mi <laughs> ndeysaan ah, Ousmane mu sell mi waaye ak seen talibé waaye ndeysaan seen dof la ko topp Ousmane oh, Sonko leen dal nekk leen nit